Uh, salaamaaleykum wa rahmatullah dañu ñëwoon tay eh, si évaluation préparation magal Seigne Abdou Lahad nga xamé nak ñu ngi koy programmer pour le 24 euh, mois de mai euh, année bi 2022 mu nekk magal ba nga xamé nak day regrouper man na wax nak des milliers voire des millions de personnes et que l'olu euh comme niñ ko day chaque fois di def une préparation Nous nak euh, ñu commencé par euh, organisation CRD moy comité euh, réunion comité régional de développement ba nga xamé que monsieur le gouverneur mom moko présider présidé Ces réunions bobu nak mu ay expression de besoin mais également ay engagement nga xamé service technique yi jël nañ engagement yoy nak mom la ñu ñëwon tay pour xayma euh fan nañ ci toll euh bu ñu défé le tour comme ni ñuy wax euh, service euh gis nañ nak que engagement yi de ñoom ñoo ngi nekk jël en charge et que you si ëpp pour le moment yi nga xamé nak ki euh service yi def nañu li nga xamé nak mom moom nañu waroon dina am ya nga xamé nak nak dañ koy gëna euh, dañ koy topp rek pour euh, mën a euh, jàppale ñi nga xam ne mooy service yi pour ñu mën a def li ñu war a def loolu gis nañ ne mairie de Touba moom déjà jël na les dispositions pour mën a accompagner aussi bien pour li ñuy xam ne mooy éclairage public entretien bi ñoo ngi koy def mais également accompagner yenn services yi tels que service d'hygiène pour que ñu mën a def seen liggéey benen bi mooy euh, li nga xamee ne que moom mooy mooy wàllu sécurité euh, lu si jëm si commissariat spécial bu Touba déjà ñoom aussi jël nañ seen i matuwaay pour que nga xamee ne que avant événement bi dina am euh, li nga xamee ne que mooy dispositif bu ñuy mettre en place pour mën a vraiment wéyal bu baax li nga xamee ne que mooy màggal bi dans la sécurité et euh, comité d'organisation bi dina len jappalé pour mën identifier bu baax sites yi nga xamé ne que nañu wara a gëna sécuriser mais euh, en dehors de sécurisation bobu dina am yenen action yi nga xamé nañ ko def pour que bép pèlerin bu ñëw fi mu nekk dans la sécurité totale euh, benen bi manam aussi gendarmerie ñom aussi dinañ len transmettre li nga xamé ne que site yi nga xamé mom mom nañu wara sécuriser pour que ñom ñu déjà Euh, prendre les dispositions pour euh, mën a def sécurisation boobu sapeurs yi euh, toujours ci sécurité ñoom aussi dinañ jël seen matuwaay en rapport avec le comité d'organisation pour mën a def li nga xamee ne que moom nañu war pour eaux et forêt déjà ñoom jël nañu def nañu li nga xamee ne que moom nañu kii et déjà permis yi nga xamee ne moom nañu laajoon ñoom déjà déjà disponible nañ si mbirum santé nga xamee ne dañu demandé won ay postes avancés euh, également ay appui à médicaments ak yoyu disposition yi euh ñong koy jël au niveau euh, du médecin chef de district et que même euh, li nga xamee que moy le nombre de postes yi ñu demandé woon muy douze mën na am sax ñu ñu xoolaat nan nañ koy augmenter pour mën satisfaire li nga xamee ne que mom moy demande bi mbaadam wàll wàllum hygiène aussi euh, li nga xamee ne que mooy produit yi aussi euh, carburant bi ak li nga xamee ne que moom nañu war a euh, utiliser yëpp pour kii déjà loolu disponible nañ en rapport avec le comité d'organisation dinañ def li nga xamee ne que mooy sites cent cinquante sites yi nga xamee ne que moom nañu war a à partir de demain incha allah yëpp dinañ ko mën a commencer incha allah hydraulique aussi am na ay demande de besoins yu si Walum camion également si walu bâche en rapport avec euh, Maou Rahmati euh, dinañ euh, mettre à disposition au total 6 camions 4 par l'hydraulique et deux par Maou Rahmati et que aussi Walum bâche aussi dina am ya nga que nous nañu mettre à disposition yeneen yi nga xamee ne moom est en rapport avec le fort xool ndëgam ñoom ils sont euh, mën nañu accompagner pour mën a compléter li nga xamee ne que mooy demande bi euh, maintenance forage bi euh, ki wax na ko ne c'est en cours que dinañ mën a maintenir ñetti forage yi nga xamee ne que ñoom ñoo nekkoon en baisse de pression et que lépp daal dina dina yemb élevage également incha allah ils ont pris les dispositions pour mën a accompagner le comité de même que Sonatel Senelec ñoom ñoo ngi si liggéey bi euh, pour euh, vraiment mën a satisfaire li nga xamee ne que moom la ñu soxla ONAS euh, ak UCG aussi ñoom aussi jël nañ des engagements encore fermes léegi pour mën a vraiment une bonne réussite même du Magal di yokk ne rek lii aussi ñun dinañ mën a gën a superviser les services aussi gën leen soñ pour que vraiment tous ces engagements yu ñu jëloon au CRD lii nga xamee ne que moom ñu commencé wala lii nga xam ne moom mooy des pour que ñu gën seet taxaw pour que vraiment euh, lépp daal euh, pare euh, avant avant magal bi et loolu également nu comptons si comité d'organisation bi pour que bépp la nga xamee ne am nañ ko toujours en relation avec les services ñu nekk en parfaite symbiose pour que ñu mën a mën a vraiment def une bonne organisation incha allah en tout cas di sant bu baax Euh, également di sàkku par rapport ak euh, li nga xamee ne que moom nañu jublu euh, en tout cas administration moom dina taxaw pour vraiment accompagner tous les acteurs pour une bonne réussite de l'événement inchallah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh préfet ñu ngi lay nuyu bu di nuyu sous préfet ak ñi nga <coughs> muy de service yi nga àndal yëpp di leen sant seen tànk xam ne lépp yéene ak pas-pas rek moo ko waral te ne su leen a jëlee bu mukk di jàll ci ndax yéen a dox suñu digg ak kon lu ñuy war a wax rek yéen lañ koy wax ngeen jottali ko lu ñuy wax itam ngeen jottali ko bind ak ñaan ngeen fi nekk xaj na fu mbooloo daje fu ne yéen a war war yor seen kaaraange ak seenum paj engagement yooyu rek jël nañ ko bu baax a baax police wax nañ ko docteur bi wax na loolu kon lool ñu ngi leen sant bu baax baax li jël itam ay diggante yoo ne ñu ngi ci am yaakaar ndax seen yitte ju yi ngeen def ci yëf yi mel ne yëf yi ñor na leen njaareem yéen a fa ñii ñëpp fi ñëw yéen leen andi woon njaareem ngir déglu kàddu yu sëriñ bi yi mu bëgg ci màggal gi ak yéeneem bi ñu leen ko waxee itam la ngeen ci mën yëpp ci jot li ko war jot def ngeen ko kon loolu seen wàll ñu ngi leen di sant ci loolu baax leen ci gërëm di ñaar lii nag. mun suñ suñ suñ suñ jëmmi bopp tam ñu ngi sant taalibi sëriñ Abdou Lahad yi ak taalibi murid yëpp ndax bis bi dañ koo bokk bokk ak ñoom kenn ku ne am ci pas-pas kenn ku ne am ci yéene moo tax ñu yëgal leen ko kon ñu ngi leen di woo ba noppi woo nañ leen waaye ñu ngi ngeen teew ci bis bi ak lépp lu koy jaar rek nañ ko daan waxee maire itam li mu wax euh, li mu lépp def na ko moom ci gàttal kon ñoo itam ñu ngi koy sant xam naa war nañ laa sant waaye mën nañ laa bañ sant ndax dañoo yem ci bis bi ndax da ngay da ngay taalibe di doom ci kër gi boo noppi porté tur yi kon ñetti ñetti ñetti anam yëpp da la cee kon ci gàttal rek wax ji dugut xanaa gën a sant gën a gërëm gën a ñaan te nun taalibe yi nun ñi nga xam ne dañoo yaakaar si ñëpp nag ñu ñu gën a fabu ndax am na yoo xam ne noo ko war a warloo suñu bopp waruñu ko wàcc rek ñu ñu koy defal ndax war nañoo mën a am bâche yu doy sëkk ba duñ ko lijjanti fenn war na mën a am ay seetaan yoo xam itam duñ ko laaj kenn ak yeneen ak yeneen yenn loolu nag sëñ laat bu ñu jógee ren jii nañ nañ nañ nañ préparé ndax bu ngeen ne Italie nangami baas lañ soxla dañ leen ko jox bu ngeen ne Espagne nangami oto lañ soxla dañ ko mën a wut ak biir réew mi ndax yàlla mën la mën nañu jënd oto def ko fa boobaa dootuñu soxla kenn dara nit ki su bëggee moom boppam day mën a boppam te loolu daa bokk dem ak sa bopp sukkandiku sa bopp bañ a sukkandiku ci doomu adama ndax ku dul yàlla rek ba ngay tëlee yàlla rek moo fi sax moo fi lu jóg kon nag kii fi ne woon nag foofu la wéer woon moo tax dawul xaar ci lenn lu mu masaa ji naan li ma am def naa ko ci lu mu waay jox ma defal la ko ci noonu nag foofu lan war nekk te buñu faa jóg kon ñu ngi leen sant di leen gërëm di ñaal màggal gi lu ci waay yéene ak lu ci waay fas saa borom fa yàlla ko tànk du fen tànk du dem fu bëggut seen tànk yi ngi ñëw fii ak bëggal ak yéene kon nag yokk ngeen bëgg yokk yàlla ci yàlla yokk jëriñu ngeen bëgg ñu yàlla ci yàlla jëriñ ci barke Cheikh Abdoulaye barke sëñ Tuubaa asalaamaaleykum wa